kii ma leen di wan photo bii mooy naange njomb na dafa doon bambara waaye taalibe Baay la woon boo xam ne xamut natt ci Baay ci dina Babacar Caam nañ déggoon mooy wax mu ne moom gàmmul na ko ba tey waaye mu ne naange def na ko daf doon dem ngeen ngi ne ànd benn waay waxtu wu ne rek mu naan sama sëriñ mooy sëriñ yi mooy jëkkër yi sëriñ mu ne ñaari yoon ñetti yoon daa ngeen ne ko ah rex-rex léeg-léeg mu damm sa jënu laal boo xeexut da ragal man de sama sëriñ kenn mënta doo jëkkëram xanaa mooy doo jëkkër yi kenn mënu ko koy sa sëriñ mënu ko bàyyi ñi mënu ko te li ma la wax soo ko weddee tayel saxaar gi ñu ngi ci xàll bi ma départ ko wala yow nga téye ko man ma départ ko naa mu ne mu jëkk moom yàgg rek mu bëri ne tëpp tànkam day joram ne saxaar gi taxawal ci ndigalal ki lay doxlu saxaar gi ne sëkk métcanicien yi commencé rang rang kang kang lu def ba mu yàgg naa ngi jooy ne ko xees naa yàlla at jaami yàlla yi nga xam ne xamuñ la xamuñu waaye su doon maag yow rek fii la ñuy fanaan dellu dóoraat fa mu dóoroon ne ko doxal ci ndigalal ki la taxawloo ko maa ngi mu ne dimanche la ko def altine talaata àllarba alxames àjjuma muy julli si juma bi muy taxaw ci peral nga baay bi rek baay génn ak bi ne lépp ne ko ndaange baal saxaaru tubaay ngay taxawloo ci yoon li nga xam-xamuñ ko ma ne ko naa ngi taxawloo kon yaa ko taxawloo ko naa ngi ngi macha allah.